xaar xaar. mën nañ leen boole ci ñi nga xam ne dañu ni wooye ay shuhadaa mooy ñi nga xam ne dañoo tegoon seen tànk ci dëgg di xeex ngir dëgg ba leen ciy fekk fekk leen ci. bu tee nag ñu yokk ñaan yàlla leen yàlla yërëm te jéggal yàlla defal leen ci kër bu baax yaatu xam ne yu xaw a wax na ni wax ji mën na gudd mën naa bañ a gudd ndax dama namoon gars yi. waaye dinañu dinañu fexe ba tënk ko ndax jamono yi toll li ëpp ci wax. mooy waxu suñu candidat le président Diomaye Faye na wax ji mën naa bañ gudd parce que nous avons une élection à gagner et chaque heure moo tax ñu koy essayer tënk rek ci ñaar wala ñetti anam balaa may dugg ci yooyu dinaa delluwaat remercier ñi nga xam ne ñëpp bàyyi nañ seen yitte yoroon seen kuréel moo xam parti la wala mouvement wala personnalité la individuelle ñëw jàpp ci coalition Diomaye président te boobu jamono gisantewuñu sax ak Diomaye tooguñoo ak moom di leen wax dal leen ak jàmm ndax ñun jaayuñu Sénégalais yi nit projet lañ jaayi Sénégalais yi kon su ngeen ñëwee ci projet ngeen ñëw. seen projet la di ci beral loxo nag suñu yeneen ñaari candidat yoo xam ne suñuy naw nañu ñëpp xam ko suñu diggante weesu na partenariat muy la doyen Habib Sy mi toog fii ak le docteur Cheikh Tidiane Dièye anam yi ma mooy li jiitu élection bi lu bëri xew na fi damay wax ni su amoon kenn rek ko waroon contesté mooy man mii Ousmane Sonko ndax conseil constitutionnel li mu def ñëpp xam nañ ci teguñu ci yoon conseil constitutionnel nee sur la base de la commune renommée moom dégg nañu ne condamnation am na ra transmettre ñu ko condamnation mais moom moo dem def ay investigation nee pour dem tirer des conséquences ci loo xam ne loi mayu ko ko parce que loi li mu wax mooy bu dee nit sax am na condamnation boo xam ne juge bi prononcé wul la déchéance civique pour nga génne ko il faut nga appliquer l'article quarante et un code électoral mooy procédure bi ñu defoon te mu yóbbu ñu Ziguinchor andi ñu Dakar pour mun ko rajee te loolu respecté wuñ def da koo def sur li ci nekk yëpp xam nañ ko donc soo amoon kenn ku war a conseil contesté man lay doon waaye def moo ko parce que li ñuy teeloon mooy nañu fexe ba projet bi placé ay candidat te projet bi am na ko moo tax ma profitoo ci woo Sénégal yëpp ñu ànd ak tey ak dal ndax bu dee conseil constitutionnel dafa jël ñaar wala ñetti décision ci fan yi ñëpp tëb ne conseil constitutionnel conseil constitutionnel te ci gannaaw ga ñu xam ni am na leneen leneen lu ci laxasu yenn saa yi ëllëg bu bu defee leneen ci résultat élection yi mënuñu dellu si conseil constitutionnel nañ ci ànd ak tey ak dal d'autant que nag am na ay rumeur yu am amaguñ ci ay preuve buñ ko amoon moom man bokk naa ci njëkk ñëw taxaw ne lii mënul dem. waaye dégg ngeen ay rumeur corruption la ñu ci déggagum ci ay début de preuve matul preuve moo tax ma ne nañu dal su conseil constitutionnel defee yoon dafa def liggéey jarul jaajëf waaye comme tàmbaloon nañu def safaan ba tamit nañu mooy di gaawantu di jiital émotion li ñu war a demander tey conseil constitutionnel. te di ko au président Macky Sall, il peut encore rendre service à ce pays. ndax ki mu defoon candidat am te bëggatu ko ñëpp xam nañ ni ay pexem weesu na foo ko mën a natt koo xam ne nekk nekkagoo président de la république waaye fexe nga ba wiiri ba gasal président kamb ba tey état yëpp tegu sa loxo te lépp ay malet rek a ko moo ko lal xam kooku ku xeeb ay pexem ñun ñi ko xam ne nekkoon ak moom xewuñu ko kon nañu gën a takk suñu digg te xam ni élection bi bu jaaree yoon gëw ma ni mun nañu rek moins de 60 pour cent incha allah waaye buñ jàpp ni c'est gagné moo tax nañu gën a fegal nga ndaw ñi dem jëli seen carte électeur topp ci caravane yi daw baax na waaye munition bi mooy carte électeur ne ñëpp jënd seen carte électeur ndaw ñeeg mag ñi la ñu def te mu jig ma mooy dem voter massivement mais sécuriser le vote également te loolu ndaw ñi rek ko ko mën ba pare toog aux alentours des bureaux de yenn fa ba ngoon ku ñëw bu nga def naka sa noonu ngeen digaale koog moom ba ñu dépouiller ba signer PV yi. ba envoyé quartier général ñëpp am seen i PV loolu nañ ko daan defee nañ ko def ñu ko ëppee ren parce que élection yi enjeu bi bokkul ak benn enjeu waaye it ñu continuer am exigence ci ñi nga xam ne ñoo war a organiser élection bi moo tax may président ma Sall que bu ñu génnee ci élection bi affaire bi jaxasoo demam yomb. foo xam ko moom xam na ay pexe ex candidat waaye su dee bëgg na rendre un dernier service à ce pays pour demim deminam tane na fexe ba élection yi doon yu mucc ay leer nañ ci gaje ñu ne kii la ñëpp ànd félicité ko ñu xam ni lii la yàlla tudd kon dama wax ni loolu parenthèse la woon li jiitu élection yi si amee waroon contesté man bii la mais yàlla may nañu président Diomaye Diallo may ñu président Habib si Diallo may ñu président Cheikh Tidiane Gueye Diallo kon sama jëmm amatul solo lu dul ñëw jàpp ci ñu dox ñu ne ah élection yi xaw naa jaxasoo reporté nañu coow yu bëri te it may dalal xelu ñëpp nii fa ñu newoon amul lu ñu ëmb ci réew mi léegi daal xale yi ne il faut ñu nettali ma lu bëree bëree bëri classement Coupe d'Afrique beeg ak yeneen ak yeneen lépp yëg nañu. kon xamoon nañu la xew ci dëkk di ko suivre comme ñëpp ca loolu ñu doon suivre dëkk bi jaxasoo na yéen ñëpp dégg ay waxtaan yu am naam waxtaan yu bari am na ay ndaw yu bari yónni na leen ñu ñëw ci ñun wax ndax mënuloon ñàkk damay wax ni Pastef dañu am jamono ju ñu toll boo xam ne kàmb dafa am wala dafa am benn écart diggante ñun ñi nga xam ne yàlla nattuwoon nañu ñu jiite ko ak li ëpp suñuy militant te communication jafe woon ba mënuñoo jottali li ñu bëgg waaye ku am seetlu tuuti bi nga xam ni à partir de du mois de mars deux mille vingt trois am na lu bëri lu soppeeku ci stratégie Pastef parce que projet boo ko yoree projet de société da ngay évoluer moom bu ma koy tënk ci lu gàtt rek te di jël royuwaay ci diine gi gën a xam dama naan am na Makka am Madina am Hudaybiya am Fathu Makka am lu tegu ci Fatou jamono jii nag ñi ngi ci mujjanteelu xuddee bi ndax xam ngeen xuddee bi jamono jii màkka fitna la woon ba tax mënatul nekk ñu gàddaay dem Madina Madina métti na woon xeer yi xare yi am yépp ci Madina la xame ba waxtaan am keroog ci Xudaybiya yonent bi alayhi salaam takk ay jëlee moom fasam ne namm naa Madina namm naa Makka dañuy aji ñëw ba tiim Makka ba di gis les premiers bâtiments ci benn gox bu ñuy wax Xudaybiya yéefar yi takk armée bi su ngeen duggee ñu faagaagal mu si signé pacte boo xam ne moo ko jural dix ans Dakar bi mu defaru ci defar ci armée defar ci ba keroog bi mu jubloo ci Makka mi ngi woon ci jiite armée bu mat dix mille personnes te ne nii nag guerre du am bu soobee yàlla ndax élection bii du doon guerre. mu des nag élection bii ñaar yooyu ñu dese étape yooyu ñu ne dinañu fayu dinañu Il n'y aura pas de vengeance, il y aura de la justice. nañ ci jàngal ne boo ci boo ci nekkee rek mënoo def lu jàpp néew ñu nag ni impunité waaye kii defoon na ma faw ma fay du fi am bu ñu yàlla joxee réew mi mbokk yi est-ce que xam ngeen li ñuy xaar li ñuy xaar xamagu leen ko de li ñuy xaar jaxasoo na rëy na bëri na te population yi toppuñu yu daw ci mbedd mi elles seront très tey ñu am bor yu ñu war a fay mooy ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci ñi nga xam ne ñàkk nañ ci cër ñi nga xam ne def nañu ay at ci kaso bi ñoom ñëpp dañ leen war a fay bor bi te naka lañ leen koy fayee mooy fexe ba gëm-gëm gi ñu amoon ci ñun bu buñ ci mës a teggi suñu tànk lu toll ni tarafataay kon waxtaan am na ay ndaw ñëw nañ ma gis waxtaan yi ci ñetti poñ la amul benn bu ñu déggoo la waaye def nañ ko ci respect mutuel te loolu amoon solo waxtaan nañu ci report élection may leen xalaatu leen ko élection bi mënu leen ko laal bañ ma ne il faut ñu reporter élection bi ndax yow ak diw il faut ngeen bokk ma leen sama bokk élection mënul justifier report élection